bonsoir euh, ça dépend de l'heure où vous le suivez maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen ne le 14 février Nak euh, man Fama ma content trop di la dalal euh, tey ñu fas yéene waxtaanee mbëggeel ah mbëggeel naka lañ koy dundee en tant qu'artiste, artiste ak naka lañ ko war a en tant que jigéen mbëggeel na dafa nekk loo xamante ne man Fama dafa am solo li tax mu am solo parce que mbëggeel mooy àddina mbëggeel moo tax guerre du am. mbëggeel moo tax xiif du am mbëggeel moo tax mar du am ma mbëggeel moo tax euh, ñëpp ñu war a nekk benn comme ni ko suñu papa yu suñu waxee mbëggeel dafa bëri doole waaw dafa bëri doole moo tax nag euh, le 14 yi tey dara warul sedd lépp war a yëngu naka la war a yëngu nga am sa partenaire ah muy sa jabar muy sa jëkkër da ngeen war a bëggalante maanaam comme ni ñu koy waxee rek mbëggeel chaque jour lañ koy dund rawatina nag la. mars février nak euh, c'est pas évident ni jël benn jour jagleel ko mbëggeel da ngay gis ma femme ñu xuloo woon yëpp dañuy jiboo le 14 février parce que xamnañ nañ ne fête de l'amour 14 février day yokk comme comme rew parce que da ngay gis jaaykatu gerte ba dem jindi ay fleurs tek ko ci table di ko jaay te day jaar nit ñi dañ koy jënd diko offrir sen bien-aimé donc euh, mu nekk loo xamante 14 euh, février waxatuma la sax mbëggeel mais économie pays sax da ci jouer. am solo ci économie bu pays jógee ci loolu nag ñu wax nag jigéen ñi naka la ñuy toppatoowee seen jëkkër jëkkër rek laa wax ah. na neex génne leen cuuraay génne leen biñ biñ yi génne leen sëru not yi ah leen monot yi affaire yu baax yi nga xamante ne léegi xew si jamono xale jigéen ñi di ko utiliser génne leen ko bégal seeni borom foog naa ku sa 14 février neex boo 15 février donc euh, ma fête tous les jours mais 14 février c'est un jour vraiment spécial aimez même les uns les autres je vous aime